jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan si bu Pro Media ñi leen di nuyu di leen jox seen waaye amaat contentement a teg yéen si seen plateau Bour Guéweul ak Doudou Bour ñu ngi lay nuyu di la ziar bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi ñuy seetaan si bu Pro Media. Euh, ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel di wax rek la ñu daan wax di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wasalaam di gërëm suñu ñaari wayjur waaye di ñaanal suñu wayjur bu jigéen. fa mu tëdd yàlla na ko suñu yërmande suñu borom fekk moom ak ko fekk ak kum fa fekk doo ma tara suum hmm. di ñaanal suñu wayjuru góor hmm. yàlla sàmm ko sàmm ak njabootam ay soxnaam ak njabootam jërëjëf rasulullah hmm. waaye di ziar ak a ndokkeel suñu bunt ci Cheikhul Khadim mm-hmm. amiin di Mawlana Cheikh Ibrahim ibnu Sëriñ Mbacké Madina mm-hmm. di ko ñaanal sama borom dafa ko riddan barakatan wa rahmatan fi barakatil Cheikhul Khadim amiin waaye magam ju baax ji nga xam ne tey moo toog toogaayu borom Madina bi seen Cheikh Madina mm-hmm. yéen bu diis bu rëy bii nga xam ne ku dul borom attanu ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko borom taawule amiin di ziar ak ndokkeel alxalifatul am li tarixatil muridina cheikh mouhamadul muntaxa ibnu cheikh mouhamadul bachir di ko ñaanal yàlla li mu naanal li mu naanal cheikhul xadim ak yaakaar bu rëy bi réew am ci moom ak liggéey yu rëy yi mu sumbal cheikhul xadim yàlla bu ci dara laal suuf amiin na mu ko waxee woon rek ne illaahi kalimatullahi al-ulya nee du laal suuf ba ëllëg ci peccum yàlla incha allah du laal suuf dañu ñaan yàlla lu mu naal yàlla nañu ànd ak moom yeggali ko dooru di la nuyu di nuyu xanaa suñu gars yi fii ah. mhm. xam ni dañuy supporté waa jaaxle bi waaw waa ba jaaxle bi ñoom Boubacar ah. ñoom Boubacar booy bu con bi ñoom Ibrahima ah, bu ah euh, booy vétérinaire. Baba Elaz booy Elaz. waa Elaz. Baba Ataaya. Baba mi nga xam ne moo nekk ci caayin bi. ndeysaan ak booy bi mel ni Pacaala booy bi nu mu tudd. <laughs> waaw ah. Alpha Alpha ah di nuyu waale ah. ndeysaan waaw. buuru euh, di la ndokkeel yow tamit di la ziar ndax gars yi na mën nañu buur ak buur torop sax buur euh, ñu ngi lay fay comme ni ko daan defee rek ah waaye mbokki internet yi gis ngeen ko noonu ah. buur sama première question tey xam nga fan laa jëm hmm. Gris Bordeaux Ama Baldé Gris Bordeaux nee nañ dafa blessé mais buur man lii lobi la gars yi nee nañ lobi la wala lan la Balla Gaye bu blessé fii giri Bordeaux fee mais Ama Baldé est-ce que loolu arrangement am la toog cinq ans nga duudu man lu ma neex ci da nga man may géwal. non léegi yaa ngi yaa ngi commencé ci. Ndeye Ngom Bambilor rek sama maam. Dudu waaw. dama toogoon fii ne Ama Baldé nañ ko tiré d'affaire. Mhm. nañ ko dimbali. Mhm. bu ma nee nañ ko dimbali. Mhm. gars yi dañu jàpp ne ko wutal ko combat rek lañ ko war dimbali. ok. Ama dafa nekk ci zone de turbulence. ci carrière am. avance contre Modou Ama bëggoon na ko certes pour relever mhm. mais avance boobu mooy source malheur Ama Baldé yëpp sincèrement ok mooy attent ba yàgg na mhm. xaar ba yàgg na mhm. bu finalement ci Gris Bordeaux dama fi toog ni bu ñu moytul saison ren combat yu mag yu bëri du du am billaahi wal kitaabi wallaahi waxoon nga ko vidéo mu ngi circulé li tax du am mooy gisuma seenuk am mais dañuy massawu d'abord Ibrahima Diop mm-hmm. le promoteur mm-hmm. euh, vraiment ku gëm yàlla laa mm-hmm. mais liy dal ci comme ces derniers années laa ci làmb metti na man chaque jour bu ñee combat wam mbër mi nangam rek moom lay njëkk xalaat ndeysaan promoteur bi barke c'est un gars très sérieux mm-hmm. un gars très poli un gars social un gars très mm-hmm. gentil Ibrahima Diop mais mu ngi bëgg a sonn mm-hmm. te gars yi xamuñu naka lay def ba dajale ay juróom ak ñaar dërëm parce que tey coow li départoon na ci début ba mooy Ama Baldé Modou Lo mooy njëkk am Gris Bordeaux Ama Baldé moo njëkk am ñu lijjanti ko ba CNG tranché ne Ama Baldé Gris mooy njëkk am mm-hmm. def nañ ci ay signature certes mais amoon ñu yaakaar woon benn ci man mm-hmm. bu gëmul woon ni ko combat boobu dina gaawe nañ ko foogee ok xalaatuma ko woon ci promoteur bi nii mu demee nii laa ko njorte woon barke alxuraan dina am ku ci gaañu man Ama Baldé sax laa laa gënoon foog ni moom mooy gaañu ok ndax ku xam ci blessure bi mu jugee mhm. euh, déchirure musculaire dafay blessure boo xam ne à tout moment mën na yeew ok gis naa nag ñoom Pape génn nañ fi aalu fii ñoom Abdou Baaxum ñi hmm? ñoom Xaarim Ndiaye numéro un mais quand même dogalu yàlla la mhm. Euh, Gris n'est pas un tricheur. quel que soit Alpha. du daw un yoota. Hmm. ku muy bëreel da jox bakkanam mbaa mu jël sa gos. ok donc ñu ngi koy accuser naan Dilla c'est un tricheur non non non Gris wax dëgg yàlla sama akulaay taala la yoo. Hmm. du mbër buy nuance ci ay diin. ok du mbër buy yàq la am. déedéet su ne dafa gaañoo dafa gaañ. ok. ndax wax dëgg ci sa waay du wàññi ci yow. dara dara wallaay azim. donc dañ koy ñaan prompt rétablissement mhm. mu gaaw wér mais am Ama Baldé moo jëre yërëm ok Ama Baldé moo jara ñaanal Ama Baldé moo jara jàppale parce que li ko topp ci làmb bàyyeeku ko ok te dulu Ama dafa war ci làmb ah dafa am wàll si làmb wàll bu rëy ok mais li ko topp bàyyeeku ko mais est-ce que du dem coom bi sangu ji boo xam ah de waaye li ko topp daal bàyyeegu ko xamuñu nag lan la ah! xamuñu lan la mais mënuma comprendre un grand champion bu mel ni Ama Baldé du ak li mu am ci mbooloo bu ko topp ak ni mu mel ci mën a bëri doomu fallaay ji saf xorom bari bayre am doole bu bàkku ñëpp bég wallaay Ama Baldé di bëgg a toog six benn combat mais loolu c'est catastrophique Doudou waaw ah, metti na dafa métti financièrement dafa métti. waaw waaw parce que dafa euh, boot ne kër ndeyam ma kër baayam. ok ba noppi moom di un père de famille. ok am ñu mu war di jàppale socialement nga nar toog presque cinq ans ak lu teg bëri woo financièrement dafay compliqué. dafay compliqué psychologiquement. Mhm. dafay métti ci moom parce que bu yàggee dafay commencé dutuwu ci jëmmam. ok mooy man la moom daal man amaat. man maanaam te loolu baaxul ci sportif physiquement baaxul ci moom. Mhm. parce que sportif buy entraîner di liggéey te du compétir. yow du du football nga. dëgg la bu fekkee ne que sportif nga te doo compétir mën na la yóbbu ba ci ñëw ci bés. dëgg la repère Gris Bordeaux wax na ko diggante ak Balla Gaye nee na li ma li ma dal li ci gën a métti mooy bi ma ñëwee ci bi ma ñëwee ci arène bi effectivement dama perte repère. Ah, perte repère ok. te attention amaa bari na doole am na sañ-sañ mën na bëri. a que Doudou bëreegul ci arène nationale bi. biñ ko ibbee ba léegi. ba te mu ngi gëj bari bëri digganteem poisson stade Léopold Sédar Senghor donc mën na ko créer à l'avenir. ok donc na waa Pikine booloo jàppale am Baldé sax fam nañ gën a taxaw dama ne woon Ama Baldé pourquoi mënuñu ko jox ci ñeenti avance yi nii laa ko waxee woon Doudou. ok parce que buñ ko joxee ñeenti avance yi dina ko permettre mu dund. dina ko permettre mu nekk à lees am stabilité financière mooy li mu bëgg def mu def ko. ok mais bu fekkee ay benn avance benn tey nga préparer combat ba mu des même pas un mois ñu la sa adversaire dafa blessé nooy def fekk la nga amoon lépp quatre-vingt-dix pour cent def nga ci sëriñ fay nga say entraînement li ci des nga dund ci tey bu subaa bu ñu àjjee waat combat bi nooy def. dangay ngay dem à sec. loolu moo ko daloon ci Modou mhm. moo ko dalaat tey. donc urgent la le cas de Ama Baldé les bienfaiteurs de Pikine ña fa nekk di ay borom barke. Mhm. nañu yëkkati ay millions teg ko ci loxo Ama Baldé. ok en commençant par le président Thierno Ndom Ba. Mhm. le maire Abdoulaye Timbo. kilifa yuy dëkk Pikine. Amadou Fall. nañu yëkkati ay millions teg ko ci loxo Ama Baldé xam ni Ama Baldé euh, patrimoine Pikine la. drapeau Pikine lay représenté. nañ ko dimbali financièrement mu taxaw. Hmm. buñ ko defulee li muy dund ni ça risque de de compliquer. Hmm. sa carrière. ba pare di ndaw. di xale. Hmm. donc li tegu ci kaw metti na. te li muy dund aussi metti na. te Ama Baldé alalu làmb la. ah, ah mais alalu làmb la duudu. kuy sa bàyyi faalaay ah, borom gin cee ceer ak ndawal wallaay bàyyam def lu ne ci histoire làmb ay buur loolu ay buñ ko dëggalee ah, ama biir stade bi waaw ama balde fii rek jàkkaarloog pagay may ah. nga xam ni bu ne sërxa tel alaaji mbay dar ko fële faalaay de dar ko hmm. nga gis grand tafanaar bi gañ rek di jooy laa ilaaha illallaah mais duudu nañu tiré d'affaire ama balde waa Pikine ñoo ci war a jiitu hmm. Pikine ay punkal doo nga fa nekk ñoom mm-hmm. laay VIP ñu ngi may dégg xam ñu wax mm-hmm. ay punkal ak ay ndaanaan ñoo nekk biir Pikine mm-hmm. nañu tiire booy bi d'affaire financièrement d'abord booy bu amee stabilité financière dina xam fan la jëm mais tey buur tey amaat fi mu ne nii tal gën a jege ah mais Gris Bordeaux lay xaar instant kon foog mu xaar foog mu xaar Gris Bordeaux su paree xaar Ama Baldé Boy Niang ah, safrala Modou Lo Boy Niang man loolu gën a gëm de kon su xaaree Gris day xaaraat. Ah, mu Lo ah, ah, Modou Lo Boy Niang bëri pare parce que bi ñu bi laajee ci combat bële euh, ci yoon ci yoon mu Lo Ama Baldé moo waroon la jiitu. ok ci yoon. parce que combat boobu moo nekkul ci table CNG. mais waa CNG ñoo retour. ñoom ñoo retourné xaw ma bon naka lañ ko expliqué ñoom ñoo xamoon dëgg yàlla. ok ba dama noonu dootuma dara ñoom. waaw waaw waaw non maa ngi may sa yi. mooy. Mhm. Ama Baldé mu ngi ci guddi gu bër sa tegul. Mhm. duudu. ndeysaan. billaahi wallaahi ci guddi gu bër mhm. sa ci VIP Pikine punkal yi. ñu mhm. yëkkati ay millions teg ci loxo Ama Baldé. loolu mooy dëgg. Ama il est jeune. de famille. c'est un de famille. tey ci diggante bi bu fi yoroon mille avance jeex. ndax yéen xam ngeen quotidien ak li muy dundee. lañ ko joxoon ci dimanche dem Modou Lo jeex na depuis benn bi wallaay nakal def bu dund ba yegg si ba fii. Mm-hmm. avant su Gris Bordeaux. Mm-hmm. yéen wóor na leen lam ci waroon def lépp na ko ci. Mm-hmm. donc fii mu nekk ni ama as gor la. du leen ñaan si. du wëri kenn pour mu dimbali ko. waaye su gor bu toll nii situation bu mel nii. ay gor ak ñi ko gëm ñoo koy taxaw. taxaw leen Ama Baldé. loolu mooy dëgg. ndeysaan loolu laa gëm sama xol laa ko jëlee ndeysaan parce que dëgg la buur waa Pikine dégg nañ la nañ ko dimbali ndeysaan mm-hmm. waa Pikine dégg nañ la loolu la ñu amoon li nga xamante ni mm-hmm. jot na si suñu waxtu mm-hmm. temps bi xoj nañu waaye looy tàggu gërëm yàlla di sant yàlla di wax gars yi ne leen góor yi ngi fi ah euh, maag dulu dañuy yënguwaat mm. ah non loolu mënut a xam naa ni lamb masata xolam féex na masata Alla Ndiaye ñu koy jaale di ko jaale bilaay sama xarit eh, ku baax Abdoulaye Sy Alla Ndiaye bilaay Alla Ndiaye Baye Ndiaye bilaay eh, ñoom ñëpp ñu ngi leen jaale sóora ndeysaan koy jàllale euh, métti na waa sant mhm, mhm, euh, mhm. yàlla. mooy def li ci ni mu ko neexee ak ni mu ko soobee. jox dig daje euh, beneen yoon ci ngoonu làmb ci duudu ak buur. balaa ñoo tàggoo rek damay bëggee ki nga xamante ni moo di Cheikh Biram suñu téyeer bi Serifa. waaw Cheikh bi waaw man de mais duudu teraanga joo ko mënoo ko. waaw mais moom teraanga joo mosul. yow <laughs> Cheikh gis nga ko noonu buur mi ngi lay si tabaski bi ah, ah, ah loo loo baax ak ah, xar yi xar yi gars xar yi buur amagul xar <laughs> di di jaay ba beneen yoon jërë ngeen jëf